njëkkee amet euh, coowal benn joueur la pour vous rassurer yéen ñi teewlu nekkul joueur yi nga xam ne ñoom ñoo dem Qatar mais benn ancien international mu di euh, Kalidou Fadiga weekend bi nag euh, nekk na weekend am ndax coow jot na judd si moom si benn soxna boo xam ne ay Aïcha Ba lay wuyoo mi ngi ci France nee na daf ko takkoon takk boo xam ne du woon takk suuf maanaam famille Kalidou ñaan si woon nañ ko ci jamono jooju c'était en 2003 ñu jot ci am doom boo xam ne nag fi ne mu ngi ci 17 ans euh, bay bëgg dugg dugg 18 ans te ba tey Kalidou Fadiga reconnaître doom jooju mu dal di nettali coow li ak fi mu commencé ci jamonoy deux 2002 ci la xamante ak Fadiga ñoom ñaar ñu bëggante say dox seen diggante ci noonu xale bu jigéen bi daal di dem fi nga xam ne moom moo di euh, France waaye ci jamono jooju euh, bi mu ko waxee ne ko dafa tollu euh, diggante bëggul woon soxna belge bi mu amoon yëg ko mu daal di koy wax ne na dindi li nga xam ne moom moo di ëmb bi Aïcha ba nee na bi mu bañee sax yónni na El Diouf moom Kalidou Fadiga yónni na El Hadj Diouf ci Aïcha pour mu ñëw jéem ko convaincre andil ko xaalis bu bari ngir ñu dem dindi ëmb bii nee na bi mu ko joxee xaalis boobu dafa jël xaalis bi ne ko bu demee mu jox ko faamam boobu di belge belge bi ngir mu rey ci doomam mi nga xam ne moom la moom la jot a am mu nekk histoire bu compliquée boo xam ne Ameth dem nañ ba ba ci weekend bi ñu sulliwaat fi wax jooju mais ay Aïcha aussi dal dinañuy réagir defaat yeneen i révélation yoo xam ne jot na tukkee ci coow loolu mu ne 17 ans yoo xam ne ñi ngi topp si Kalidou Fadiga ngir mu reconnaître ki nga xam ne moom moo di xale bi ndax xale bi ba tey amul ay kayit yoo xamante ne ni war na ko mën a dal di jëfandikoo ci turu papaam dem nañ tey tax tey jii ba fi nga xam ne fa lañ ko yóbbu si euh, benn centre boo xam ne fa la nekk ci yëngu ci wàllum football euh, Kalidou Fadiga jot na fa jaar ngir yàqal xale bi maanaam bañ ñu jël ko foofu noonu ngir mu bañ euh, mu yëngu si li nga xam ne moom moo di football bi muy def euh, sëru ay Ba nag moom moo jot a xamle lu ni mel mu nekk histoire boo xam ne bu compliqué la ci réew mi nga xam ne fi lañu toll aussi gis nañ réaction sénégalais yi ak yenn commentaires yoo xam ne jot na juddu lu tax ñu bàyyi ba heure bi ñu soog ko wax lu tax lu tax tax ay question yu bare bari yoo xam ne sëru Aïcha bi nee na li taxoon Kalidou Fadiga ci jamono jooju aussi mu bañ ne euh, ëmb boobu wala mu bañ a reconnaître xale bi dañ doon giñ ki nga xam ne moom moo di Aïcha ba adultère maanaam daf doon séq ak beneen góor boo xam ne bokkul ak jëkkëram yooyu bokk na ci mbir yi nga xam ne moo waral tey situation bi ak si fi mu ak si Ahmed <laughs> soxna bon man moom vraiment mënuma si sonn bi ko Khalilou Fadiga c'est euh, man moom sama sama sama sama star lay nekk ba ba fin du monde te nekk na yoo xamante ne euh, d'habitude dañ ko fi faral di dégg mënuñu euh, juger est-ce c'est parce que des fois nga gis euh, ñun jigéen ñi dañu xaw a doy waar takkal benn star tout le temps dañ koy gis à même à l'international des fois aussi nga gis suñu star yi tamit ñoo tamit dañoo doy waar yemuñu di def ay takk suuf ak yu ni mel mais yaakaar naa fu doom xas ba juddu j'ai l'habitude de le bu nekkee yow wóor na la ni rek dem nga ci wala yow yaa ngi dute ndax yaay papam demal nga def test ADN ndax deret dafa forte doom kenn du ko kenn ko rejeté mais n'empêche xamuñu ndax c'est vrai ou pas donc euh, il faut situation yi. donc Ameth suñu Aliou ba mu ne may photo bi en même temps ñu commenté ko photo xale bi euh, parce que gis nañ bi histoire bi juddoo dem nañ ba wëri xale bi andi ko collage ko ak photo du Fadiga ñenn ñi di koy wax ne bu dee sa doom demal nga jëli ko voilà mu ngi ni non non du photo bi photo xale bi. Aïcha bi Aïcha la kii mooy Aïcha ba voilà xale bi mu ngi ni ni euh, il a 17 ans ñu ne ko nag fi ne nii na dem reconnaître ki nga xam ne moom moo di doomam. ay Fadiga la wala xale bi. Fadiga la ak ah, xale bi Fadiga bi waaw ñu ne yaa ngi wax léegi takk suuf pour ma dellu si waat foofu famille bi nee nañ du takku suuf ndax famille du Fadiga yónnee nañ ba ñu may ko ko mais Fadiga moo doon nëbb jabaru belgium bi que am na beneen jabaru olof mais jabaru tubaabam bi dem na ba yëg ko ba benn événement jotoon na am mu ñëw song si sëru Aïcha Ba ngir xeex ak moom. c'est parce que moment boobu yëgoon na ko ba nee na boobu takk der yi moo leen moo leen séparé peut-être moo andi ah, mais assumé bu nekkee ëppali nga euh, damay jox monsieur Mbengue en tant que euh, du ngeen koy mais bu yegsee ci yéen nan ngeen di la woote. maandu ah rek parce que lii moom du suñu domaine quoi. Mm-hmm.

non non moom mujjewul moom day toog Belgique rek Fadiga bu ñëwee Sénégal nekk ak kii bu delloo Belgique nekk ak moom mais mu rek ah eh, eh, eh ayca ñu dem nañ dem Marseille <laughs>